dajaloo ay ndaw ba pare tamit di leen jox ay jumtuwaay yu ñuy jëfandikoo pour mun a def wàllum tàggat yaram bi si mel ni football loolu naka dafay nekk waajaay bu rëy. ñi nga xam te ne que nañ ci mbir moomu ak jafe-jafe yooyu noonu dañ dee mujjee dem bitim réew di fa def wàllum tàggat yaram li naka moo tax ki nga xamante ne que moo nekkoon Gambien goalkeeper bi di Pa Dembo Touré moom naka mu mayee ay yëre yi nga xamante ne que dañ koy jëfandikoo pour mën a play football si ñi nga xamante ne que ñoom ñoo nekk Danso Football Academy ki nga xamante ne que moo ko fa teewaloon di waagaan fay moom naka wax na naka la Pa Dembo ñëwee ak mbir mi. Pa Dembo moom nag am na jumtuwaay yi lii naka dafay jafe pour nit ñi mën koo am war a tam dina yàgga moo tax nag ñu waxtaan mu wax ma ne nag moom dina mën a jël lii ba pare may ko nag ñi nga xamante nag ñoom dañuy def wàllum football. lu may wax ni naka di ngeen ko gisee leneen waaye suma doom yi ñoom nag si académie bii lañ bokk moo tax naka ma ne nañ ko tàmbalee fii garab bi nga xam nañ yeneen académie yan jafe-jafe nekk di jànkuwanteel te soo xoolee académie bi di nga xam ne naka amuñ ay jumtuwaay yu bëri moo tax naka ma ne lii dina nekk lu am solo lool pour ñu jox gaay ay jumtuwaay yi Abdoulaye Danso moom nag moo nekk secrétaire général bu Danso football academy moom nag jaajëfal na ñi nga xamante nag ñoo leen may lii ba pare tamit dem nag di wax naka la lii di amee njëriñ ci seen académie bi. man maa ngi leen jaajëfal bu baax yéen mi nga xamante ne tànn ngeen ñu ci yeneen académie yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi. te soo ko seetloo di nga gis ne nag am na académie yu bëri yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci réewub ya waaye moom nag tànn nañu jox ñu lii gis nga naka la ndaw yi kontaanee ci mbir mi. te soo ñu xoolee di nga xam ne nag ñun amuñ ay jumtuwaay yu bëri waaye lii nag dinañu jàppale bu baax moo tax nag dinañ ko aar te saa yu ñuy dem nag pour jongante ak ñeneen yi dinañ ko mën a sol pour mën a ràññee suñ bopp. ki nga xamante ne moom moo fa teewal bi di Moussa Bandia moom nag jaajëfal na ki nga xamante ne mooy Padembo Touré. ñun dañuy jàngal xale yi pour ñu mën a xarañ ci li ñuy def moo tax naka ñu ngi jël waxtu bu ñuy am yépp di leen jàngal bu baax dinañ leen jàppale bu baax bañ mën lu ñuy def lii sax tax na ba dañuy dem seeti leen ci seen kër yi pour mën tax xale yi mën sawar ci mbir mi lu waral ñuy sol mu yëre yi mooy pour ñu mën a ràññee suñ bopp ñuy am ab jongante ak ñeneen yi te lii dina tax ba gaay ñu mën a xam naka la ñuy mën a ci fil bi moo tax nag nañ torop ci yëre yi nga xamante naka moom lañ ñu jox te naka dinañu jàppale Danso football academy mu nekk ab football academy bi nga xamante ne que ku ko taxawaloon mooy Dawda Danso te depuis bu mu ko taxawalee nag am na ñeenti at académie bi nag dañ am ndaw yi nga xamante ne que ñu ngi am at yu toll fukk ak ñaar ba ñaar fukk ak ñett te seen secrétaire général bi nag wax na ne ñaari nit yi nga xamante ne que bokkoon nañ ci académie bi ci jamono ji ñu ngi bokk ci Gambia under 17.